jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo Rewmi FM 97.5 ñu leen di nuyu bu baax a baax sunu mbokku euh, auditeurs yi ak sunu mbokku euh, auditrices yi mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey ñu invité Alla Dieng mi nga xam ne mooy. Euh, secrétaire exécutif bu UNACOIS euh, yeesal nekk njiitul euh, union des forces citoyennes moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne aju na ci wàllum actualité sëñ bi Dieng maa ngi lay nuyu. yàlla maa ngi lay fay di nuyu ñu ñuy déglu ñëpp am rectificatif bu indi tout court rek mooy directeur exécutif bu UNACOIS yeesal maanaam nekkoon naa secrétaire permanent ñu falma ci assemblée générale. 19 euh, décembre 2017 fal ku ñuy wax président national Cheikh Cissé. Mm-hmm. wuyu naa ko yeesal man ñu fal ma secrétaire permanent. waaye dama démissionné ci poste boobu. démissionné naa ci poste secrétaire permanent bi yu ko yeesal ndax dafa dafa mënta ànd ak sama candidature à la présidence bi nga xam danañ ci ñëw ci kanam. waaye nag poste directeur exécutif moom euh, dama ko nekkoon par intérim mu far taq sama yaram ba mënatuma tàggale ko ak moom. Mm-hmm. mais bu dee naa ko yeesal moom membre simple laa ci fi mu nii dinaa ko woowee seen membre simple. waaw fi mu nii waaw membre simple la mais dinañ ma woowee directeur exécutif mais loolu fonction boobu mënu ma ko dindi parce que intérim la woon léegi ñëpp ñun nañ ko ci man dinañ ma ko wax du ko dindi. mais secteur permanent moom dama ci démissionné. waaw mais est taxawaay bi nga amoon ci naa ko waay yeesal ba léegi nii moom nga am. lu ko romb salaam waaye nag discours bu ma fay tënee dafa mënut a ànd ak xam nga damay respecté mbooloo mi aussi. damay res xaaral ma ñu parce que Ina ko yeesal ña fa nekk ñi ko jiite kii mën naa far fii ki far fii ki far fii ki far fii donc waruma indi discours ci affaire citoyenneté ak développement boo xam dana yàqal lu jëm ci affaire économie bi ñu naan wax fële. Hmm. léegi nag fu ma ci waay laaj plusieurs casquettes laa yore mais du ma solandoo yëpp. man damay sumi benn sol beneen sumi benn sol beneen sumi benn. sol beneen mais mais mais mais man ngaa déclaré na sa ne man candidat la terewul euh, professionnellement euh, leneen la nga nekk boo fay tenir discours nga xam euh, la nga fay tenir discours. loolu man waaw mooy en tant que opérateur économique ak membre de dinaa ko yeesal. d'accord <laughs> léegi mais yaay njiitul union des forces citoyennes ba tey. waaw kooku moom naa président bi barki dem rek lañ ma renouveler. nga bëgg a dem élec nga bëgg a dem Kandé nga a. waaw léegi nag ñoom non seulement dañ ma renouveler mais dañ ne nekk candidat Benno. voilà c'est ça pour nekk candidat Benno. wala ma bokk ci ñi nga xam ne nekk nañ biir Benno soxla présidentielle xam nga loolu su amee suñ dee juróom fukk ba fi téeméer sax mën nañu waxtaan suñ biir ëllëg choisir kenn ci biir Benno bu fekkee Benno benn candidat lay am loo xam nga loolu mën naa nekk. su dul loolu mën naa am fukki candidat ku nekk beru ku nekk yóbbu awolof bu woon dara yóbbaale awolof kon daal yow fi mu ne nii da ngaa bëgg a samp sa ndënd élection présidentielle deux mille dix neuf. deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre bëgg naa cee bokk. soit bennoo samp ma. soit ma xam ne mënut am ma génn bennoo samp sama bopp boobaa dina am ñoo topp ci bennoo. d'accord danañ ci ñëw àll euh, euh, àll Dieng. mais euh, du àll Dieng moom. àll Dieng du àll a deux sell a Dieng àll Dieng voilà. mais boo boo ma defalee chèque. Mhm. def ci àll du ma ko récupérer mukk ci àdduna. accord jërëjëf <laughs> jërëjëf euh, sëñ Alla Dieng euh, mu nekk membre kon ci UNACOIS Yeesal mhm. euh, nekk moo moo nekkoon secretaire permanent waaye léegi nekkatu ko léegi membre simple la mhm. moo nekk tamit njiitul union des force citoyennes. UFC ah. léegi xam naa dinañ ci ñëw léegi nag sëñ Alla comme yow opérateur économique nga léegi dund gi nga xamante ni tey njëg yi. Euh, gis nañ ne ba léegi nii am na njëg yoo xamante ni dafa yokk mais fi ñu commencé rek mooy lu jëm ci wàllum suukar si wàllum suukar si euh, commerçant yi ak ñi nga xam ne ñooy compagnie sucrière sénégalaise dañuy faral di tuumalante ndax compagnie sucrière sénégalaise société boobu dafay wax ne moom produire na suukar soo xamante ni su doy la ñenn ñi sax dañuy njort ne commerçant yi ñoom ñoo denc suukar si pour tilimal pour salteel commerçant yi ñoom tamit di weddi loolu yow lan nga jàpp ne effectivement dëgg-dëgg moo ci am. non seulement euh, man duma la wax li ma jàpp mais dama la wax li am euh, compagnie sucrière am na ci responsabilité commerçant am nañ ci responsabilité ku ci nekk dinaa wax la lan moo ci sa responsabilité compagnie sucrière ba muy euh, xaatim këyit wu ko boole ak Sénégal ngir ñu jox leen suuf. ñu jàkkaarloog ndox mi asamaan si tiim leen ñuy exonéré seeni machine machines yu jóge bitim réew di exonéré seen i intrants booba lañ siñantoon ak réewum Sénégal 1964 ji 1965 la woon boobu Senghor mooy président de la République lañ siñantoon mooy la compagnie sucrière di produire lu doy sénégalais yi seulement nañ ko def mais dañ produire lu ko ëpp sax di exporter non seulement nañ ko def mais nañ produire lu ko doy lu doy sénégalais yi produire lu ñu exporter mais aussi defar ay dérivés. comme ay acétylène ak yeneen yoo xam ne jógee ci canne à sucre loolu moo taxoon euh, Senghor autorise leen ñu am accès ca su mi euh, moom bi fi ñëw short la sol short bi koy bi dugg Sénégal short la sol nga xam kon yëru woon alal ba bi leen xaatim boobu dama ci teg sama bët yoratuma ko nag ndax mi ngi sama archive mais mas ko am mais dama ci teg sama bët léegi nag euh, ñu jox leen suuf si au franc symbolique ñu jox ko suuf au franc symbolique mooy maanaam jaay ñu ko. ndox mi moom dafay nekk pour ñëpp asamaan dafay nekk pour lépp waaye ñu ne ko da ngay bay jàmb jàmb mooy canne à sucre indi fi ay machines yu installé di ko pressé mu génn sukkar jamono yooyu nag population Sénégal gépp laa la wax matul 5 million te ñu ngi ci 17 millions bay tegal mais booba matul 5 millions booba Dakar 350 mille 400 mille ñoo fi nekk euh, man si gàttal 74 75 laa ñu ñëw ñëkk ñëw Dakar booba maa ngi jàng Louga mais dama fi ñëw toog fi ab diir delluwaat booba booba booba Dakar mi ngi yem fii ci Solida bi mhm. arrêt arrêt car bi ci Bourguiba jàkkaarloo Solida foofu la Dakar yemoon te fa la fa la kër yemoon Solida commencé am ay entreprise yu ndaw ndaw ndaw li yëpp ba ba frontière bi bayaloon boo xam ne am ndox rek moo fi daan nekk léegi nag nga doog a dugg Pikine ak Guédiawaye mais li ci li a la woon alors euh, Dakar donc cent mille cinq cent mille maximum léegi compagnie sucrière ba léegi nii du ma ne investir nañ parce que investir nañ investir investiraat waaye doyalu produit guñ lu doy consommation Sénégal. d'accord mais mais jamono yi may wax nag. waaw mais àlla àlla bala ñëwaat bala ngay ñëw si jamono ji comme da nga commencé ci euh, Senghor. dama bëgg nga ñëw ci Senghor. par rapport taxawaay bi ñu amoon ci jamonoy Senghor ak taxawaay bi ñu amoon si jamonoy Abdou Diouf ak taxawaay bi ñu amoon si jamonoy euh, Ablaye Wade maanaam compagnie sucrière sénégalaise dafa gën a def ay jéego wala dafa gën a deltu ginnaaw. Euh, investir nañ yokk seen capace de production waaye ba population Sénégal ni muy yokkoo ci démographie investissement bi tul àndul àndul ak rythme boobu ba tax na léegi nii mënatuñu produire lu doy Sénégalais yi tey Sénégalais yi ñu ngi consommé cent quatre-vingt-cinq mille tonnes par an jege tout cent quatre-vingt-dix mille par an Mimran bu yàggul production bi nga yemoon ci quatre-vingt-dix mille tonnes léegi yéeg na ba cent dix mille yéeg na cent vingt mi cinq mille yoo xam dañ ko war a importer te commerçant yi ñoo ko war a importer mais commerçant yi ñoo ko war a importer leen ko même raa mujj na sax ne dañ ci am quota bu mu bañ ko laajee lu tax mu ne sur 12 mois 9 9 mois yi laay produire am na 3 mois yoo xam ne du ma produire léegi su ma am su ma lan laay fayee salaire ñooñu bu ñu waxee aussi mu ne am mu teg épée de Damoclès ci bopp état daan ne am naa 9000 employés mais c'est faux am na wala lu ko jege tuuti li ci des ay saisonniers lañ ñooñu ay saisonniers doo leen considéré ay employés tant que que produit bu saison bi waree ñëw ñu xam nga jàmb yi ay machines ñoo koy dagg. Mhm. mais am na yoo xam loxo moo koy dagg. Mhm. loolu nag nit ñu bëri la ñuy recruter foofu moom ay saisonniers. alors kon ba population Sénégal égguloon foofu kon te taxul donte investir lu bari nag la vérité investir na lu bari ba léegi nii doyagul lu lu mën a Sénégal mën a par contre ba léegi nag amul monopole boo ne nit Alla Dieng amul droit ubbi beneen compagnie sucrière am na ci droit amul benn loi bu koy tere mais la charte ya moom mooy diis. sarti li ci njëkk mooy minimum 500 milliards da nga ko ci investir mooy sarti yi. loolu kon 500 milliards mili minimum laa wax minimum maanaam 300 milliards du doy. ñaareel ba aussi ci làmmiñu André Froissart mooy ancien directeur compagnie suñu yàlla dafa dafa gaañu léegi yàlla na ko suñu borom yërëm moo wax làmmiñam sama nopp mu ne. rien n'empêche que beneen compagnie ubbi beneen compagnie ubbi beneen compagnie ubbi bu ñu amee investisseurs yu ko nañ ko def malheureusement nag mënoo fi defar sukkar sukkandiku ci euh, matière première yu jóge bitim réew. doo jële matière première bitim di ko transformer en sucre loolu boo ko defee tamaro doon nañ ko def mais boo ko defee da ngay obligé exporter mais doo ko jaay fii. mais mais état bi ni mu ko yombalee compagnie sucrière sénégalaise est ce que bu ko yombaloon yeneen investisseur tey yu nekk ay sénégalais euh, du ñu mën a ubbi beneen compagnie. loolu interrogation la loolu mu yaru na maana am na ay facilité yoo xam bu ñu ko defoon da nga gis ñu ñeme. mais du nekk ay sénégalais tout court dajale seen xaalis mën na am parce que ay sénégalais dajale nañ fi du fi centrale à centrale à gaz donc war nañ mën dajale ubbi compagnie sucrière mais lëkkaloo aussi ñu nekk bitim réew. Mhm, comme ay brésiliens tout mhm. man am na jamono yoo xam sax am na ñu ci intéressé woon mais du woon sax pour du woon mais booru Casamance la am am naa ci ñu ma ci mën a waxtaan ñu nekk ci CNES sax doon naa ci waxtaan ak ñoom alors. Euh, euh, si il faut donc nga am espace bi ci wetu compagnie sucrière comme ni ma ko defalee état bi defal ay facilité maanaam sa matériel su fi ñëwee dañ koy exonérer li ñuy wax transfert de technologie say doo ci fay douane dañ koy intégrer mais il faut nga produire kan fii kan kan à sucre fii soo demee ci tool yi man parce que ñoom dañu invité woon ñëw foofu ñu xëy dem ci tool yi yendu fa ak ñoom ñëw ci restaurant bi añ ba pare def signé fi convention de visite usine bi jàmb yi bu xase ba taxaw day am autour doomu aadama ba pare à perte de vue doo xam fu mu yem machine yi dañ ba ñu koy dagg dañ koy taal ba xob yi xob yi yi def nii yëpp dee mu def tiige bu taxaw ñu dagg ko def ko ci chariot yi euh, dem yóbbu ko ci barab ba raxas ko ba mu set compressé ko liquide bi génn moom la ñu defar sukkar donc yombul moo tax toujours ñun dañ siñ signature bi ñu ko bi ñu convention bi def ak ñoom dañ leen wax sax ne ñun leen ñun en tant dañ leen wax ne leen yokk leen qualité bi wàññi leen njëg gi ngir renforcer fluidité distribution bi parce que ku soxla sukkar dem ba compagnie dem ba Risaato di ko jëli te jóge Kédougou wala jóge Tamba mais dafa metti pourquoi pas ñoom lii di distribution Dakar ak euh, Diourbel wala Kaolack nga xam ne centre du Sénégal loolu fekk su nañ ne parce que léegi am nañ lii lii fii ci Dakar donc loolu bokk na ci ñun li ñu leen wax ci signature convention bi signature convention bi nag eggal c'est parce que jamono yooyu Euh, ba léegi état bi day subven am na lu muy subventionné ci sukkar si sukkar si jógee compagnie sucrière donte doyul consommateur waaw léegi mais yéen li leen compagnie bi di tuumaal commerçant yi na léegi loolu du ma ne waaw du ma ne déet supposons sax ma ne waaw am na mais léegi ana état état su fekkee mënul dem ba bu amatul moyen contrôler ba gis ne alajang jël na sukkar tëj ko fenn ne duma ko jaay léegi damay xaar fii ak deux mois njëg yéeg ma jaay su fekkee état mënu ko xam ba démanteler loolu ba jàpp ki ko def parce que loolu déli la boobu déli la ñun ànduñu ne kenn koy def loolu amuñu sax suñu membre bu koy def te bari nañ ay membre yu importé sukkar mais ba ci mos fatal président président la ci INACO yeesal mais ñun bu loolu su amee su ko état amul amul capacité de détecter loolu mais kooku kon fu ñu jëm parce que suukar si ñuy importé su ne cëpp ci port bi ba nga am sa départ ba génne ko mais camion bu ko sëf bu jógee ca port ba fu mu dugg état war na ko topp ba xam fu dugg douane sax waxuma sax état mais service douane rek war na ko mën a xam fu ñu ko stocké war nañ xam ngir ëllëg ne suukar bu fekkee ne dañuy suukar xam ne nangami jàpp ko ko teg ko ay du ay daan d'accord yow léegi lan nga jàpp ne moo tax suukar si manqué nii parce que bëriwul ni mu war a bëree quand le produit euh, se raréfie les prix montent mais si le produit est à foison maanaam marché bi suñu gisee ci dëkk bi mais njëg day stagné wala mu wàcc mais du yéeg mukk léegi nag lu tax euh, ma daa joxe benn exemple même ñiy importer suukar dañuy importer suukar pare amay difficulté pour jaay ko boo euh, batu suukar mu ñëw ba fii port Dakar dédouané goo ñaari mbir rek moo mën a am ku dul Sénégalais ñuy jënd ko comme Malien Burkinabé Nigéria nga xam amuñu façade maritime ñoom day ñëw ci hôtel yi man dama leen yéeg sax bu ñëwee fii parce que dañ am nañu ma ci contacté ne dañu bëgg sukkar ñooñu dañu bëgg jënd sukkar su douane su ñëwee fay ki ko indi bu ko paree dañu leen ko dañu leen koy escorter ñu dem ba ca frontière Mali Sénégal yam foofa douane Mali jël relais bi mu dem Bamako wala mu dem euh, Kaay wala Kidira wala je sepa sais wala mu dem dem Niamey wala mu dem euh, kii mhm. wala mu dem feneen rek mais bu fekkee da bëgg mu dugg ci territoire sénégalais moom il faut nga am li ñuy wax DIPA DIPA loolu mooy déclaration d' importation des produits alimentaires. sukkar ci la bokk ak yeneen ak yeneen mais sukkar moo gën a jafe départ yooyu kan moo koy joxe départ yooyu kan moo koy joxe ak nuñ koy joxee départ yooyu état bi moo koy joxe jaaree ko ministère du commerce mu jaar ci direction du commerce intérieur. Mmh. d' accord mais Alain taxawaayu ministère du commerce ci wàllum njëg yi rawatina suukar si noo ko gisee yow. Ah, mi ngi ciy def kéemtaay kattan mais mën naa yokk loxoom. d' abord ministère bi amul stabilité bi fi Macky Sall nekkee léegi foog naa juróomi nit jaar nañ fi. loolu amul stabilité. waaw ah, kooku ci Macky Sall lañ ko war parce que moom moo am droit nommé ministre moo am droit de de gomme ministre gomme ministre mooy lan Mati si Diallo mu njëkk nag ministre commerce foog naa de après El Hadj Malick Gakou après Alioune Sarr après Assome Diatta après Abdou Karim Fofana. donc manque na instabilité te instabilité mi manqué ministre dana ñëw ñun commerçant ñu liggéey moom ci benn dossier ba sori. ñu jëlee ko fi keneen ñëw kooku su ñëwee mën naa am du mettre une croix ci la fa fekk mais da koy joyantiwaat te booy joyante day tàmbalee Sadio ñu ko yore. waaw mais commerçant yi parfois est-ce ñu nekk nekkuñu ay saboteur ñenn si ñoom di saboter léeg-léeg euh, ministère bi. non pas saboter mais euh, topp seen i intérêt. commerçant yi waaw waaw. ah li may wax nii xam nga rajo laay wax. Hmm. ñàkkul am ñu ci jëf ji jëf ji jëf ngir sauvegarder seen intérêt yu amoon ci ki fi nekkoon keneen ñëw. ñàkkul information yu am di joxe fausse information ngir sauvegarder seen intérêt du ma ne déet am na. kon da jàpp ne ay lobby dafa am ci biir commerce bi. lobby mi ngi fépp lobby. mi ngi sax ci napp jën yi. mi ngi ci boulangerie yi mi ngi feneen ngi ci commerce mi ngi ci politique yi lobby mi ngi fépp. lobby waaye nag man yàlla dafa ma ci defal sutura am naa ci responsabilité ba tey am naa ci responsabilité mais euh, sama loxo ci kaw. maanaam amu ci fu ma fu ma ñemewul a dem. parce que defuma ci lu may lu ma lu ma yedd sama bopp. te am naa ci du am naa ci ay dugg-dugg yu bari nag. waaw mais mais mais dégg na euh, état bi ma ngi wax euh, vingt mille euh, ton suukar soo xamante ni moom la dugal ci marché bi au moins pour jéem a régler situation bi. man fi mu ne am na ñu ma seqal ñoo xam ne vingt cinq mille tonnes ñu denc barab yoo xam ne ku ñëw ñu jaay la mais mënagul dugg ci marché bi te jaarul ci ci ku ko jënd yoo xam ne ni depuis trois jours maa ngi ciy liggéey ak ñeneen. ay Sénégalais noonu ñu ñu jóge bitim réew lañ am nañ ay partenaires sénégalais man bokk naa ci partenaires sénégalais waaye man sama rôle mooy jaay man importé wu ma donc vingt mille tonnes yooyu aussi c'est normal parce que ñëw na moment bu ñu ko soxlaa mais day fekk nguur gi ànd ci maanaam nguur gi l'état si l'état veut l'état peut. mais tension bi am na yëpp est-ce que du yéene koy créer. non ñu ko créer Euh, wala am na lu ñu ci créé mais am na ñoo ci état bi la moo tax dama la expliqué ne la bateau su euh, aux alentours de Dakar nii ci hmm. port Dakar. Ah. am na bateau secours yu tëmb. Hmm. yoo xam mënaguñu am accès fii mais importation bi dañ ko réguler. parce que bu bu Membrane produire amuñu droit importer wala buñ dajee ci marché bi euh, qualité bi gën a baax wala njëg gën a baax mooy dominer mais toujours am na gab bu ñu importer fii am na gab boo xam ci réew mi lay jóge li jógee ci réew mi nag. même daal des produits dugal ci marché bi du doy ñu importer léeg-léeg ñu bëgg ñoo sollicité pour ñun ñu jàppale leen pour lañ importer mais man li ma ci mujj a wax dama leen non ñun mën nañ leen jàppale ci li ngeen produire te jarul mais mënuñu leen jàppale ci li ngeen importer te jarul li ngeen importer te jarul moom bala ñu leen ci jàppale ñu jàppale commerçant bu ñu xamul sax même bu dul suñu membre sax ñu jàppale ci mhm. parce que ñun dañu ci déglu ci kaw bu tension bi amee bu ñu defee mën naa wàcc parce que ñun am nañu réseau de distribution bu à travers le Sénégal yoo xam ay kilifa yu bëri ñu ngi ci biir am loo xam suñ ko waxee mu dem ci région yëpp ci mais difficulté bi fi nekkoon te aussi loolu commerçant yi def ñun danañ ci jéem pour mooy ñii ñii importer suukar pare dëkk ci zone frontalière mhm. yor ay boutique léeg-léeg suukar ñëw fa ñu yóbbu ko ci beneen réew di ko fa jaay te fekk dañ ko subventionné pour Sénégal donc amul droit génn Sénégal compagnie suukar woo ñu diñu ko jàmbat pour jàppale leen ci def nañ ci lañ man d' accord mais euh, njëg yi nga xam ne ba léegi dafay mel ne état bi mënu ci dara njëg yi ma ngi woy di euh, yokk ba léegi contrôle bi état bi doon def sax ci koñ ci boutique yeeg yooyu dafa mel ne état bi sax maanaam dakkal na ko. contrôle sax dafa daganatul daa la ñu nekk marché libéralisé am na jamono yoo xam ne nii contrôle économique amoon na nekk service étatique mais loolu dañ ko démantelé te ko moo ko xeex bañ démantelé ko Abdou Khadre xam naa say at bëriwul waaye am na jamono yoo xam ne nii kenn amul droit indi ceeb ci réew mi dul jamono jooju dafa amoon lu ñuy wax caisse de péréquation et de stabilisation des prix. Mhm. ku ñuy wax Abbas Ba mos na ko jiite nekk ministre Abdourahmane Sow bu Louga mos na ko jiite. loolu dinaa ko amoo xeex ba mu dañ mooy wane ne ceeb kenn amul droit di ko monopoliser gis nga jamono yooyu ceeb ba ma saa ñëw. beere la ñu jël di ko def ci ceeb bi ngir mu génn dugub bi picc yi li nga xam picc dañ ko lekk nga xam ne lu weex la la Sénégal yi war a lekk. Mhm. doomu aadama yi les picc ñoo ko lekk beere nga daan jël wala pilovert di ko def ci ceeb bi. léegi nag booba benn qualité ceeb rek mooy am nga bëgg moom ngay lekk boo bëggul moom ngay lekk mhm. léegi nag am na douze qualité ceeb yu nekk ci dëkk bi parce que libéralisé nañ ko léegi bi ñu ko libéralisé mënul ànd ak contrôle des prix par contre am na prix homologué mhm. te loolu la état sañ moo tax ay volontaires yi ñuy wax ak ak ñu doon homologué état bi di def ay bon bu ñu homologué daa fekk aussi état subventionné mais mais yow sa tissu bi fa nga ko jëndee demoo di waxaale ba eggal nga jubóog moom jot ci tissu bi des ci nga génne sa xaalis état bi ne la doo ko def parce que njëg bi ëpp na yoonam nekku ci moom impôt bu muy lijjante mooy ci tissu fa mu jógee bay dugg ci Sénégal fay nga douane te lii produit luxe la tant que ceeb dootul luxe mais nécessité la diwlin du luxe nécessité la soble pomme de terre yooyu yëpp bi état bi dafa teg ay kuréel yu koy réguler comme ARM pour pomme de bu ñu produire pomme

commerçant du jaay perte. du jaay perte mu loolu mu àdduna day tukki boobaa. Hmm. commerçant du jaay perte yàlla bindoo ko loolu mënu ko du ko def. Hmm. sarxe cent franc sarxe mille franc sarxe cinq mille moo ko jëndal moo ko gënal jaay perte yi dix franc. loolu moom par principe la. par principe cest à commerce boo ci duggee da ngay yëngu ngir am dara loola ngay am mooy épargne nga dajale épargne bi mën a investir yeneen yore sa njaboot di ci suturlu loolu mooy commerce. d'accord. jërëjëf euh, euh, Alla Dieng euh, ñu fàttali ne yow membre nga ci UNACOIS Yeesal yow yaay njiitul union des forces citoyennes UFC ñu wax nag ci lu jëm ci wàllum wàllum politique ndax du ñu sori li ñu doon wax ndax tension politique bi est-ce que amul lenn lu mu mën a yàq ci ci investisseurs yi ndax maa ngi dégg sax partenaires financiers ak techniques yu Sénégal yi di waa union européenne ak seen ñoom di wax ne lépp lu ñu mën pour apaiser. Euh, nañu ko def tension politique bi yow euh, noo ko gisee ak ban gàllankoor la mën a indi ci économie réew mi. gàllankoor bu rëy rëy rëy rëy euh, Sénégal warul accepter benn bis procès am diggante man ak yow diggante ñaari sénégalais ñaari citoyen sénégal ku ne am benn carte d'identité sénégalais maa ak yow ñu am problème ñu tëj dëkk bi tëj dëkk bi tëj réew mi sax parce que ñu sóoraale leen département yi ba kenn du liggéey loolu plus de quarante milliards ci bis. ci économie perte. ah bon waaw waaw léegi nag calculer ñetti fan yu tegaloo day egg cent vingt milliards te loolu xayma boobu mënul exact daf koy da koy xaw a jege rek pour da ko mën na ko romb sax. mais quarante milliards bëriwul. économie dafa nag te Sénégal activité dafa te li ëpp ci activités yi informel lañ te informel euh, mooy dundu nit ñi xam nga léegi nit ñi ñëpp ñu xëy benn bis ñëpp même parce que dimanche sax nit ñi dañuy liggéey mais calcul bis boo xam ne dañuy xëy ñëpp toog seen kër kenn bañ a liggéey nag transport taxaw. kat ñi jaay carburant compagnie téléphone sax ñoo ñooy sax ndax ñoo mën nga nekk sa kër di téléphoné mais euh, mais l' économie est kooku 40 milliards par jour. tuuti banque yi tëj. banque yi tëj y' a pas de transaction. jaay ko tootee fii. mais c' est à dire bu fekkee ne 40 milliards tuuti na ñu xeeb ko nañ ko tegal une semaine ñu xool banqueroute lañ jëm parce que tey boo yore leen nit bor ndax bor dette dafa bokk ci économie boo yore leen nit bor mais da liggéey ngir fay ko. waaye léegi soo liggéeyul nag tamam bor bi mu effacé wul mu taxaw la loolu mën na jur sax ay violence donc dañoo xayma estimatif parce que am na chiffre yoo xam chiffre exact ki ko mën a joxee mu wér ci Sénégal mooy ANSD waaye leneen lu loolu dañuy xayma xeeb chiffre yu ko jege mais benn 24 heures bu ñu liggéeyul am na sax ñu ko doon estimé 72 milliards donc ça veut dire 40 milliards yoon na maanaam 60 l'économie dafa rëy mais calculer toutes les sociétés. toutes les transactions toutes les actions économiques à l'arrêt pendant vingt quatre heures am na ñoo xam bëccëg la liggéey am ñoo xam guddi la ñuy liggéey mais euh, usines ñooy war a liggéey su nekkul usine usine parce que usines yi nekkuñu tout tout n'est am na loo xam ne ay nit même bu dee électronique sax ordinateur ay doomu aadama ñoo koy manipuler mais tout tout à l'arrêt mais loolu état am doole ko ci def benn yoon ñaari fa ñetti kii ñetti fan tegaloo mais da nga koy sentir waxantuma la état tension politique bi gënul te loolu benn benn benn euh, jugement la bu am le matin balaa tisbaar jot verdict bi gën na ku nekk dellu ci suba ga nit ñi liggéey nañ c'est parce que euh, li xewoon 2021 moo tax ba état day jël les devant surtout ci wàllu sécurité pour nit ñi procès bi buy am mais warul empêcher nit ñi ñu circuler waruñu empêcher nit ñi ñu liggéey. parce que mais est-ce que tension bi procès boobu kese la. ci la te itam procès bi jeexagul ndax dem na appel. comme aussi beneen procès bi waraloon deux mille vingt muy diggante euh, Adji Sarr ak euh, Sonko mais loolu. Euh, kenn la ma suñu kanam ba tey. kenn xamul kañ la. te hmm. kenn xamul foofu mar a àkki. itam amaan na beneen problème ak diw. Hmm. benn policier bu ko porté plainte donc pour pour dire la vérité aussi langue politique yi jax na bi ci Ousmane Sonko duggee. te sax nam ci duggee sax garaawul au début parce que booba accusation affaire Mamour Diallo affaire député yi 10 millions yi affaire nangam nangam nangam lañ daan dégg mais tension mosu woon a yëg ba bakkan di rot boobu moom élection day am mu dem am li muy am comme ba mu nekkee député extra kooku man duma ko du ko du ko analyser mais lii nga dafa laal économie moom sañ naa ci analyser loolu moom gënul te lu mais lan moo ci responsabilité Ousmane Sonko. Euh, d' abord bu dee affaire Adji Sarr li ma ci xam te man ko cee wax premièrement mooy biñ ko njëkk a convoqué te munul génn. ñu ñu tëj ko man de déplacé naa seeti ko ànd ak professeur Malick Ndiaye ak ku ñuy wax Mourtala Seck ak beneen étudiante keroog buntu bu nekk jéem nañu faa duggee mu jafe dañu mujj téléphoné protocole mu ñu jël suñu parce que dañu dañ ko so man dem naa dem naa bu fekk fa bi ma ko fekk aussi dama ne ko man benn bokk yaakaar laa bokk mais comme dañu la tuumaal yow te àttee guñ la am nga présomption d'innocence moo tax ma ñëw di la mat saw loolu laa ko wax mu ne ma maa ngi lay doon gis mais dégg naa la et cetera professeur Malick Ndiaye wax après Mourtala Seck wax donc man seeti naa ko maintenant euh, ñàkkul ne loxo état dugg na ci dossier boobu. bi ko tëjee na ko doo génn cité kër góor mooy ba ñu ko jëkkee convoqué te demagul. maanaam demagul procès bi bi jaraloon nit ñi dee maanaam jamono xam nga boo xam boo fàttali ko dañ ko dañ ne moom bu lever le immunité parlementaire bu ñu ko convoqué cinq minutes yu suivre dana topp mm-hmm. diggante boobu nag balaa ñu koy balaa ñu koy arrêté ba koy inculpé diggante boobu xam nga dañ ko gawoon kenn mënu am accès moom mbooloo mu bëri pour sécurité am na fa loolu aussi am na lu ci am excès am na except mais aussi c' est prévenir pour dara bañ a xew dana gàllankoor na ñu dëkk ak moom waaye ñoo dëkk moom dañ naan on peut choisir ses amis mais on ne peut pas choisir ses voisins loolu moom la léegi nag dama ne loxo état ci dossier boobu parce que dégg nañ ci diw dégg ci diw dégg ci te loolu aussi ko lal te sa adversaire politique du ñu la baal dara waaye nag responsable Ousmane Sonko mooy la war loolu la ko waral ah na ci loo xam ne bànneexu bakkanam la parce que foofu mu daan dem ñu mu koy tuumaal mais foofu est que fajukaay la te dem na fa la yàgg-yàgg balaa mbir mi siiw ci li ma xam li ma dégg parce que lu nekk ci loxo yoon mën naa ci am fu ma yem man aussi waaw ah, mais toppewuñ ko dem fa euh, wala ñàkk faa bañ a dem liñ koy toppee am na wala amul ñu gis ay certificat médical ak seen ñoom dégg si tamit ñoo xam ne ñu jege nguur gi lañ. déggoo ma ne ne ñàkkul ne loxo état wala loxo régime bi wala loxo APR je ne pas ñàkkul ne mi ngi ci duma ma ko weddi aw ma ci preuve mais dégg naa ko ñoom nañ ci nañ ci nañ fexe ba génn seen loxo suñoo nekku ci ñu ñu am preuve ci ne génn nañ ci waaye la fa la fa yóbbu Ousmane bañ ko koy accuser coobare boppam la. Hmm. accusation bi diggante moom ak benn doomu aadama benn doomu aadama moo ko accusé. Hmm. ndax mooma ndax du moom yàlla rek a xam ak ñoom ñaar ndax dañoo wéetoon. Hmm. waaye nag loolu warul jur fukki fukki bakkan ak ñeent rot. mu nekk responsabilité partagée état am na ci responsabilité Ousmane Sonko am na ci responsabilité te responsabilité état mi ngi tàmbalee ci fi waree xëy ñu woo ko tribunal mu war a dem certes jëruloon muy dajale mbooloo waaye certes aussi préfet moo ko doo jaar fi nga jaar ba loolu indi coow la ba ba la ca topp topp ja waaw mais euh, yow àll euh, yow euh, na histoire politique lu fekk bëri na kilifa yu ñu fi yàgg woolu tribunal ñu ànd ak seen i sympathisants seen i dem wuy ji waaw mais yow su fekkee ne ne mbooloo mi boo ko dajalee doo ko mën a maîtriser jëlul nga leen di woo te Abdou Khadre xoolal làmb ji ñaari mbër yi kuy bëre ku ci nekk ki jóge fii ki jóge fi boo ñëw toujours mbooloo ngay àndal ak ay car rapide ki ñu ñëw ñu nekk ay entrée fay parce que loolu sax mën naa am dafa waaye bu arbitre di sifflé ñaari mbër ci géew ba mhm. ña ca des ñëpp mënuñu egg sax ci biir stade wala ñu ngi ci biti de rajo wala ñu néew ñu ngi ci tribune yi mën mënuñu egg ci enceinte ba loolu aussi mbooloo tribunal ki tuumaal ak yow mi ñu tuumaal yéen ñaar yéen a jàkkaarloo ak juge bi mhm. donc jërul mbooloo mi dem te mbooloo moo xam su xase ba génn yow mënoo ko maîtriser yow mais état moom dafay nekk pour jëm a mbooloo moom loolu mooy indi coow nag état moom dafa am ay moyens pour mbooloo moom su demee ba nañ ko déborder bal fete sax bu ko tiree dafa dagan parce que ñoom ñoo yor force légale donte crime mën na ci am ñu xool a tiré moom du rey gën a ñetti saaro parce que état aussi dafa am force légale bu dul loolu te itam euh, circulation bii nii mais policiers yi boo yore sa oto si ñoom même bu fa bi verte ñoom ñu war la gannaaw sa ñoo dem tant que joxuñu or demal nga doo dem parce que euh, pouvoir état bi dafa décentralisé wàcc ba ci tali bi ñoom ñoo koy incarné donc bu ñu nee jaaral fii jaaral fii mais jaaral fii nga ne doo jaar fii mais ca la waral ñu dajji oto mi ne ko coxe dugal ko ci yóbbu ko këram ci kaabu mujj bi état état la. waaw mais état état la mais boo amee benn leader boo xam ne dooleem kenn nattabliwu ko boo ko wooloo ndax mel Ousmane sonk la ñuy woolu euh, sénégalais yu bëri tiit économie réew mi nërmeelu comme ni nga ko waxee ku mel noonu aussi dafa yell nga bàyyi ko xel même bu dul moom en personne nga bàyyi xel ñi mën a gàllankoon ñëpp. Ousmane Sonko n'est pas au-dessus de la loi Alla Dieng n'est pas au-dessus de Sonko moom kon bu mu def appel na na na xëy wuy ji ku ko topp mu ne man wowuma kenn. mais loolu du am moom à la ni ñëpp daje tribunal mais loolu loolu violence la. waaw mais dafa jàpp ne dossier politique la moo tax mu rax si politique. ma ne da eh, mën na jàpp li xewoon diggante eh, état du Sénégal ak eh, Khalifa Sall état du Sénégal ak Karim Wade mais moom jotul jotul ak état moom nit la joteel donc ku seen ndëbin ku ndëbin rey sa maam boo seen lu ñuul da ngay daw xam nga loolu la ñuy wax. Mhm. waaw am na ñu ne ku lu ñuul da ngay jàkkaarloo moom duma ko rey ko gàllankoor ko doog a jàll. waaw mais dama jox exemple rek xam nga loolu façon waxee na wala mooy waxee noonu. Mhm. mais ñetti kaay dañoo bokkul. waa ñetti kaay yu bokkul mais sànq ci sa biir wax. da nga ne yow euh, njort nga ne état wala APR dugal nañ ci loxo. da man man am naa yàqin sax. ne ah. déglu ma am naa yàqin sax dugal nañ ci seen loxo mais kañ lañ ci dugal seen loxo. <coughs> bañ ci dugal seen loxo fekk na booba lañ ko tuumal yàgg na ko def xëy na kenn amul woon sañ-sañ wax wala ñëmu ko woon wala mënu ko moom na wedd ne moom moom dafa njëkk a ne mus faa dem. dafa njëkk a wedd ne mus faa dem ba am ku yëkkati kaamil ci ñu ko jege ne Ousmane Sonko ne mus faa tàngal xamul ndaw soosu waaw ah, mu man de man dégg mu ne Moustapha. waaw léegi nag mu weddi lii nii. mosuma ko dégg ba ñu càpp dañ ne Moustapha de mën loo bind ci page Facebook am. non ay nitam. mais Ousmane Sonko en personne man dégguma mu wax ne Moustapha Deme. non dama ne la dafa njëkk bind ci page foofu ne xamul foofu Moustapha dem xamul ndaw soosu yàggul dara nit ñi am ñu ko jot a capturé yàggul dara mu mu effacé ko am ñu am mu def conférence ne ay lii dem naa fa te du benn yoon di ñaari yoon loolu aussi moom moo ko wax loolu kenn mënu ko dindi hmm. mais dama ne. même lu mu ci mënti doon am na ci loxol état wala loxol régime lu ci dugg waaye balaa ma cee dugg am na lu xew Abdou Khadre man la Dieng ma bëgg nekk président de la République Sénégal du lu ma neex wax du fu ma neex dem du ku ma neex àndal du lu ma neex sax sol président de la République Sénégal nga symboliser 17 millions sa signature engager la ñoom ñëpp ku la bañ a ku la weddi ku àndoon ak yow ku la contre sa jëmm foo taxaw inaan ñu comme drapeau Sénégal rek xam nga fi ne lu coow li bari bari bari drapeau bu ne te lu ñëpp danañ taxaw parce que ñun ñoo ko bokk koo xas ba nekk président de la république da nga symboliser état ci sa wax ci sa jëf sa sa colin sax sa kàllaama fa ngay dem Senghor bala mu daan nommé benn ministre Abdou Khadre Seck balaa Senghor nommé ministre dañ la topp juróom benn weer yoo xam ne doo ko yëg foo teg sa xam nañ ko koo waxal xam nañ ko koo seqal sa vie privée sa kër soxna ni na ngay dëkkee sa soxna ci wàllu jàmm ak say doom sax ak dara xew sa kër noo koy seet sax xam nañ ko balaa ñu leen a ministre waxoon ma la président la. ma ne da nga jàpp ne euh, tension politique bi Ousmane Sonko ko waral. tension politique bi Ousmane Sonko ci la Ousmane Sonko ci la waaw ah Macky Sall aussi ci la di. léegi nan la ñuy def ba lijjanti tension politique bi. dialogue. dialogue waxtaan no passé gul parce que président woote na ko. te président def na jéego boo xam ne ni c'était l'occasion sax pour opposition bi jël ko parce que gis nga ay ñaar nit bu ñu warantee ganaaw concession mooy tax ñu mën a jàkkaarloo maanaam ku nekk xool sax di yëddu sa morom xool ba mujj ñu tourné mën a jàkkaarloo mais fekk warante nañ gannaaw gis nga bi ñu leen invité ci indépendance yi nii dañoo waroon dem nañ dem bu leen neex sax bu ñu kenn bu leen neex bu ñu wax ak kenn mais nañ dem ba yëfi jeex ñu dem parce que Abdou parce que euh, kii Macky Sall moomul indépendance Macky Sall moomul 4 dem na. du Baara Gaye Baara Gaye dem na non non Baara Gaye dem na am na keneen ku dem ci ñoom ko ñoo xam ñu ngi ci yeewu askan wi c'est-à-dire ñoom amoon nañu droit dem toog pare dem seen yoon bañ a loolu sax ku la ku ku médiatique bu réussir lay doon ci ñoom bu ñëwee ñu bañ a wax ak Macky bu leen neex sax bañ ko nuyu wala buñ ko nuyoo ñu bañ a wax moom benn baat wala monsieur le président félicitation à nos jàmbaar félicitation aux forces de l'ordre yam foofu dem toog man benn ma laa nekk nekk fa membre fondateur sama boobu sax du woon URC mais jóg jot na la mouvement boobu laa njëkk a njëkk a dirigé ginnaaw bi URC juddu mais man toog naa opposition bu yàggul la ma toog ak ñoom dafa am lu ma bokk ak ñoom ma ko mooy lan d' accord ñu troisième candidature Macky Sall maa ngi loolu maa ñoo ko bokk mais lu dul loolu ànduma ak ñoom ci lenn xam nga daan la vie da ngay am cohérent mhm. su cohérent soo ko deful moom jërul nga exister mais dama ne tey c' était pour ñoom ñu ñëw fekk fekk ko après dem seen yoon ñëw fekkee ñu défilé nga dem Macky Sall ëppale wu ci militaire yi lu dul mission bi ko état bi jox constitutionnellement kese bu dul loolu Barthélémy Dias ak Mamadou Lamine Diallo ak euh, Ousmane Sonko ñoo yem ci militaire sénégalais ndax militaire sénégalais yi defan territoire sénégalais ñoo ci yem te loolu jour boobu fête de la jeunesse la jour boobu fête de de comment encore euh, de des forces la mais regarde symboliquement ñetti président yi nga xam ne ñu wut ay xale ñu ñu nuróoleeg ñoom dugg ci oto président Macky président Abdoulaye Wade oto otoom dugg ci oto euh, président Senghor dugg ci oto président Abdou Diouf ñu wut couple présidentiel ñu dugg ci oto yi di tàlloo ñu nit ñi ndoxo mais loolu c'est revivification de l'histoire c'est symbolique loolu ñi organisé ñoo créé loolu dafa bett sax Macky Sall parce que foogu ko woon mais mënoon naa bett noonu waa opposition yi ñëw toog wan Macky Sall ne ko 4 eh, ko ñu ñoo fi bokk suñ paree ñu delloowaat. d'accord masalan ja am na aussi dialogue bu waroon am boo xam ne nii moo waroon jiitu lii mooy lan. xam nga def nañ un mois di 6 au xam nan mois de mai révision exceptionnelle des listes électorales mais un mois la un mois ba bañ koy tànn opposition waroon na fekkee joxe ci xalaatam mu nekk. 46 dañu leen waroon a woo. bu ñu leen wooyee aussi ñoom waruñoo bañ. dañoo ruuj ji wóoru ma ndax woon nañ leen mais waruñu kon décider te ñoom tooguñu parce que ñoom ñoo bokk langue politique gi. man man dégg man li ci li ma jàpp. mooy woowuñu opposition bi woowuñu société civile bi te société civile bi doon nañu sàkk ñu yokk ko mais kenn faale wu leen. société civile am na kuréel goo xam ne dafa jóg uniquement ci affaire élection moom la ñuy wax COS. Mhm. te euh, professeur Babacar euh, Gaye jiite ko. waroon nañu leen a woo war woo acteur politique yi ñuy waxtaan ci xool ban période donte état mooy organiser ministère de l'intérieur am na loo xam ne nii consensus la war a doon. consensus su amee tension day wàcc. mais c'était l'occasion aussi ñu woo leen bu ñu leen wooyee ñëwuñu nag ñu def li ñuy def parce que état aussi warul taxaw di xaar mais dañ leen war a woo à temps ne leen bi sànga war nañu daje waxtaan ci léeg-léeg daana am daana am de. d'accord mais surtout surtout bi Aly Ngouille Ndiaye nekk ministre de l'Intérieur daana am régulièrement. d'accord mais mais dialogue bi euh, est-ce que jàpp nga ne fi mu ne nii moom euh, euh, passé wu. dialogue Euh, paasegul ndax mën naa am fi ak une semaine euh, bëriwuma bëriwuma pouvoir ci réew mi waaye dinaa ci wax dinaa ci dox mais dafa war a am te mun ta ñàkk sax am na jamono yoo xam ne nii loolu dafa dépassé état. loo xam ne mënut a ñàkk. non ñàkk mooy kilifa yi dinañ ci dugal seen loxo ci wax ak jëf kilifa yi aada dinañ ci dugal seen loxo ci wax ak jëf mais ta euh, dialogue dafa war a permanent. mais mais mais dialogue bu amul lan lay ci mën a yàq. non dialogue bu amul mooy am lu mel ni ñu jël décision ñeena ànduñ ci wala d'accord ci ñu ñu toog ci comme par exemple un mois bi ñu choisir nañu bëri ànduñ ci ku ci dugg aussi danga ci pexe bëggaloo mu rëcc la mais yaa ngi wax seen nit ñu dem inscrire mais mais dialogue mooy tax problème di néew dialogue boo ko defee yaa ngi yaa ngi yaa ngi fexe trouver solution balaa problème am. kon mais waaw da nga yow da nga jàpp ne dialogue su amul problème mën naa am. dialogue su amul problème day sax fi na. parce ce que opposition au pouvoir amuñu benn espace de rencontre waaw amuñu espace de rencontre élection yaa ngi ñëw léegi ñi war a samp seen samp seen dënn ñu kon ne dem où problème bu dialogue amul kon dañu dañu obligé bi dañ koy respecté mhm. te boobaa bu amee mën na éliminatoire yu bëri <coughs> après am ah, mais après tension bi gën a monté élection yi mën naa mën naa perturbé campagne bi mën naa perturbé xam nga perturbation moom tey jii ñu ngi ci jàmm moo tax ma wax ak mm-hmm. mais suba lii xew xaw ma ko euh, jàpp ne tension politique bi tension politique bi li si ëpp mooy ñaari mbir mooy candidature président Macky bi nga xam ne ñu bari ànd ñu si askan bi jàpp ne lu ñu moytu Abdoulaye Wade duñ ko ko may beneen bi tension bi njort nañu ne le principal opposant di Ousmane Sonko ñu ñu bari njort ne nguur gi dañoo bëgg fexe du participer ci élection ñi ànd ak président Macky ak ay xeltukat yépp jàpp ne euh, candidature Ousmane Sonko boo ko éliminé réew mi mën naa dugg ci ay jafe-jafe. Euh, Macky <coughs> amul moyen tere Ousmane Sonko mu bokk ci élection yi Macky Sall amul boobu moyen par contre Ousmane Sonko du bokk ci élection yi su ko justice accordé maanaam am na euh, tuuma yoo xam ne ñu tegoo sa kaw ba mu ànd ak verdict bu bu dëggal loolu. mën na la empêcher nga nekk ci élection président mais Macky Sall amul outil Macky Sall loo xam nekkul ci justice lu empêcher euh, Ousmane Sonko mu nekk mu nekk kan à la à la xam nga lu ko waral parquet le ministre de la justice yilif mais juge yi Macky Sall yilifu leen ñu bëri xamuñu loolu nañ ci bay bàyyi bàyyi xel parce que magistrat magistrat la mais procureur bokk la juge dafa am magistrat assis ak magistrat debout gis nga procureur saa suy wax du toog mu ko day jóg taxaw loolu mooy magistrat debout kooku dañu dépendre directement ci ministère de la justice kooku Macky Sall li def tandis que les juges on les appelle les magistrats assis mosu ñoo jóg verdict joxe verdict jóg taxaw dañuy toog te ba la muy joxe verdict dana wax ak kii wax ak kii wax ak kii wax ak kii bu dee jëlee décision nag buy jël décision leen rek moo koy yilif muy conscience am mais pas Macky ñoom tension politique bi buñ condamné di dëkk bi tàkka ñoon seen yoon nekku ci mais gis nga juge yooyu Macky sax mun leen déplacé te neexu leen ñu bëri xamuñu loolu parce que boo nee magistrat magistrat tout court mais magistrat bokkuñu bokkuñu. mais mais mais mais magistrat yi ñoom seen bopp ñenn si ñoom waxuñu lii nga wax li ñu wax mooy justice bi dafa dese indépendant. ñenn ci ñoom nga wax. waaw Abdou man bind naa 300 pages ci fonctionnement justice Sénégal mi ngi tudd les vergetures de Dame Justice et a été préfacé par maître Assane Dioma Ndiaye parce que jànguma yoon mais damaa dund yoon dafa am lu ma ci xam dama ne la même nee ñenn ci magistrat yi yaa ngi koy dégg. waaw d' accord man nee la d' accord mooy ànd naa ci ñenn ci magistrat waaye du magistrat yëpp. xam nga président Ousmane Camara bii moo njëkk nekk procureur général procureur de la république ci procès Senghor ak Mamadou Dia moo ma doon procureur général 1962. bi ma bindee sama livre balaa muy génn balaa ko sax ñu koy préfacé dama yóbbu manuscrit bi ci moom jox ko. mu mu liir rek daal ne ma bàyyi fi sa numéro téléphone ma bàyyi sa numéro ak sama tur mu daal dem bi ma koy bi ma koy gis jour boobu sax moo fa amari Ibrahima Sagna bii ancien ministre ñoo nekkoon ci buntu këram moom mi ngi dëkk ci ginnaaw président ginnaaw assemblée nationale ñu tàggale ko faamare la ma téye sama loxo ñu dugg ci biir ñu toog ma wax ko li ma yëkkate ma bàyyi mu ne ma dinaa la woo nga dee une semaine après mu woo bi mu ñëwee mu encouragé ma ba ne ma man day bi ngay génne bu fekkoon maa ngi ci gouvernement boo ko war a jël édité ko tasaare ko ñëpp gis li nekk ci biir ne maa ngi lay encouragé def naa ci annotation na eh, na nga ren tenir ci lii ma la wax après gunge ma ba may génn mu ne ma monsieur Dieng ma ne ko ah mu ne ma la justice ne sa trompe pas on la trompe kon justice la justice est toujours juste mais elle est souvent trompée par qui ce sont les magistrats ça peut être les juges mais souvent les procureurs waaw mais président bi euh, li ñu leen di tuumaal ne dañuy instrumentaliser justice bi dafa bëri te dafa am yu bëri yu koy. firndeel waaw waaw tuuma ji tam mën naa nekk dëgg mën naa bañ nekk dëgg waaye euh, ñu ñu ñu jiñ la ngay ñu jiñ la ak ndëmb bu ñu la fekk mu ngay seeñoo yexe ngay seeñoo yexe liir. moom na fexe boobu mu ci laal rek. wala bañ ci fës waaw léegi. Euh, mais moom bu waxee loolu. bu ñu waxee ne moom euh, la justice dépend du président de la république c'est la c'est la c'est le parquet ki dépend de de de de de comment encore de la présidence de la République donc du ministère de la justice par contre bu ne am na dossier yoo xam maa ca sama conca loolu moom mooy bu fekkee moo ko war a actionné wala parquet war ko actionné actionné wu ko loolu moom loolu moo rafetul yéen wul maanaa ci réew waaw man man li maa bokk si Sénégal yi jàpp ne justice bi tëddeewul njaaxaanaay léegi euh, Alla Dieng tension politique bi élection présidentielle yow léegi tey tey euh, justice bi bu dee dafa jël décision ne Ousmane Sonko du bokk hmm. conseil constitutionnel jël décision ne Macky Sall day bokk hmm. lan mooy lan lan nga jàpp ne mooy xew. est-ce que est-ce que dimanche jot nit ñi dem voté dem ñibbiwaat seen kër toog. dëkk bi loolu dëkk bi di yëngatu. man waxuma affaire Sonko li ma ci wax wax naa ci. waaw Macky Sall mënu ko empêcher mu dem présidentiel. Mhm. mais na set ci yoon d'abord. waaw non dama la wax. waaw waaw maa ngi ñëw da nga ma question naa tontu. Macky nekk candidat muy dem ñuy dem di déposer dossier donc dana indi coono ci réew mi moo tax man bokk naa ci Sénégal yi nga xam ne wala rare sénégalais yi ko jege parce que bokk naa ci euh, dem euh, nu ko waxee euh, benn bokk yaakaar mais d' accord mu ci candidature am. d' accord léegi Macky mën naa déposé problème am ñu manifester ñaari fan ñetti fan toog Ousmane Sonko ñu ne ko dem conseil ñu ne ko doo bokk ci élection après lan nga jàpp ne mooy xew. xam nga avec des si on peut construire Paris. Mm-hmm. moo tax si si si si si loolu ay conditionnalité yoo xam egguñ ca mënu ma mënu ma mënu du ma gé yo nu koy waxee sax du ma juruet wala wala may mën a xam li xew suba. waaw may mën a da nga da nga posé condition ne bu bu bu bu mais bu bu mooy si. donc munu ma ne lii mooy nar a am ëllëg mais dama ne la Ousmane Sonko Macky Sall munu ko teree bokk ci élection présidentielle waaye munu ci bokk tant que si dul ci yoon un. Mhm. Macky Sall amul droit déposer candidature te bokk naa ñi ko jege te ma ci mu déposer troisième candidature waxuma sax mandat man mandat waxuma ci. te loolu wax naa ko publiquement waxuma la sax loolu mais jàmm gën troisième mandat maay vice coordonnateur. d'accord léegi nag euh, man damay jàpp ne. li ma la wax nii ndax xam nga ko. xam naa waaw ah, kon baax na léegi danañ si ñëw si loolu sax. mais xam naa man li ma jàpp mooy mm-hmm. tension politique bi. mooy président Macky Sall bu ne day bokk problème day am. am na ñu bari bu ñu éliminer seen parrainage problème day am nga ne son ko doo bokk ci élection yow ëllëg lu xew ci dëkk bi maanaam yow euh, da nga si am part responsabilité. man loolu laa man loolu laa jàpp ndax tey euh, am na ñoo xam ne dafay am loo xam ne sénégalais yu bari dañu dafa benn rupture de confiance bu am diggante sénégalais yi ak justice bi maanaam même bu dee justice bi dañoo atte yoon sax dafay am sénégalais yoo xam ne dañuy jàpp ne tëddeewuñu njaaxaanaay ndax ay actes yoo xam ne dañuy gis président bi euh, di ko faral di poser ci wàllum yoon maanaam par exemple ñi ànd ak Macky sàll ñenn si ñoom dañuy wax loo xam ne lu garaaw a lay doon ku ànd ak Sonko wax loo xamante ne lu tuute lay doon ñu jàpp dugal ci kaso bi yooyu yëpp nag élément yooyu boo ko boolee ñenn ñi ñoo am sañ-sañ bañ a am confiance ci justice bi. loolu ànduma ci ah, ñin jàpp ci Pastef bari nañ mënoon nañ leen jàpp sax euh, entendre leen libéré leen wala ñu jugé leen def clémence ñu génn loolu wàllu justice la parce que euh, mais nag fekku man nekkuma ci mbedd mi dox ñu woo ma jàpp ma de yow aussi boo wàccee liggéey ni kenn loo woo jàpp la jàpp ñàkkul am na def lu ñu tere. xaj na lañu def aussi mën naa euh, bañ dëppook li ñu leen teg ci violence bari nañ aussi te li ci ëpp apprécié la loolu moom mën nañ ñaan justice ñu def clémence ñu libéré leen ñu dellu moo gën ñu def forcing te loolu dana yombal dialogue bi ñu bëgg parce que dialogue moom Macky Sall soxla na ko opposition bi soxla na ko mais population Sénégal ñoo ko gën a soxla ngir jàmm am donc ñoo ñuy jàpp ja kenn woowu leen ci benn jàpp leen ñàkkul lu ñu doon tere ñu def ko mais mën naa am téye gi ëpp na par rapport lañ leen accusé. mais bu dee seen loi réew moo leen may constitution ñu manifester wala résister aussi. loi bi leen may ñu manifester moom aussi mu am autorité préfectorale autorité policière commissaire ñoom ñëpp aussi loi bi moo leen may autorité te ñoom aussi duñ bàyyi désordre nekk ci Sénégal parce que am nañ les forces de l'ordre donte les forces de l'ordre souvent ñu def nekk force de de désordre waaye état aussi il faut mu teg ay jumtukaayam maanaam nit romb ci mbedd mi di waaxaru ñu jàpp ko yóbbu ko. am na lu ñu tere loo def bu la ko constitution may aussi mais ki la jàpp aussi constitution may na ko soo soo jegee ligne ligne sàngam mu jàpp la constitution moo ko may loolu mais dama ne nguur gi wala boog ministère de la justice na def action ngir parquet yi procureur yi libéré ñooñu ñu bàyyi leen dana yombal dialogue bi. mën naa am sax mooy premier condition dialogue am. donc mën suñ ko def balaa ñu yegg ci jalo jalo moom dana mas a am moom parce que Sénégal mënu dëkk ci tension te am ay nit ñu fi nekk ñu baax ñoo xam duñ ci wax duñ ci jëf. mais mais mais euh, euh, ñu wax nag. non partenaires financiers yi ñoom seen intérêt réew la ñuy défendre te amul benn homme d'affaires bu nekk bitim réew bu jël alal di ko investir ci réew mu am jalte jalte amul. ni commerçant ne buy jaay du jaay di perte noonu la investisseur du jël dërëm mu ko du ko yóbbu foo xam ne nii tension na fa am te investissement yooyu jóge bitim réew da bokk na ci li soxla koom-koom Sénégal partenaires yi fi nekk aussi seen réew la ñu représenté mais surtout seen homme d'affaires la ñu représenté ak seen i intérêt que ça soit France Belgique Allemagne États-Unis Portugal Inde Brésil seen ambassadeurs yi ak communauté ak FMI euh, yooyu ñëpp seen intérêt réew la ñuy gérer mm-hmm. te moom la ñuy sàmm te ci biir seen intérêt privé secteur privé ñoom seen secteur privé la ñuy de Sénégal gi nag moo doyalal souvent secteur privé am waaye réew yooyu ñoom doyalul seen secteur privé maanaam autorité sénégalais ni war a jàppale secteur privé sénégalais jàppale wu par rapport secteur privé étranger loolu moom lu ma dund la mën naa ci wax waaw non yeneen réew yi seen président yi ni muy jàppalee secteur privé yi suñ réew yi président yi jàppale wu noonu secteur privé bi ah non non li nga wax li ma wax yow da ngaa a wiiri wiiri non dama ne la secteur privé Sénégal autorité Sénégal jàppale wu ñu secteur privé Sénégal ni ko war a jàppalee par rapport ak secteur privé bu jóge bitim réew parce que réew yooyu ñoom dañuy jàppale seen secteur privé réew moom ku produire production da war ko exporter day am sax banque yu lay accompagner à l' fii nii nag amu fi waaw ah, Ablaye Wade demoo si am na lu ci def de Macky Sall aussi am na lu mu ci def mais bari na lu des d'accord mais euh, Alla Dieng yow lan moo tax nga bokk ci biir benn bokk yaakaar ba pare dem di fekk ñoom Aminata Touré seen ñoom di xeex troisième mandat bi. lan moo tax mag yi ne nii wuy ni non. loolu mooy yëg gis-gisam ak yëg-yëgam. waaw man aussi dama yëg ne man bis bu mag yi ne candidat la. Mhm. ma ma démissionné ci benn bokk yaakaar. ah bon maa la wax li mais sama mouvement bi nga jiite UFC moo ma jox mandat ma nekk candidat à la candidature de Benno mais aussi ñoo ma jox ne ma ñu d'accord ci troisième candidat yow léegi yow foo teg ne Macky Sall wërta nekk candidat parce que maa moom dañoo bokkandoo woon di xeex troisième candidature Ablaye Wade te condition yi moo dir si waat dix ans onze ans après mieux Macky wax na ko fii wax ko fii wax ko fii wax ko fii mais mieux bind na ko ci téeréem donc ni ko nekkuma fi di wax affaire article droit ay Ismaïla Madior Fall ak ay professeur Babacar ay articles yooyu du ma parce que du ma constitutionnalisme jànguma ko man naa ko lire mais du ma sax ko jox effet pour comprendre ko du ma ko jéem mais Sénégal wax respecté ko moo fi ma a nekk baax gis nga bu njëkk euh, suñu buur yi ak suñu kilifa yi buñ masaan wax dara ba samp seen xeej seen bakkan rek lay laaj dootuñu deltu gannaaw moo tax douze ans yi fi Abdoulaye Wade def lu ne Abdoulaye Wade wax na ko damay applaudir ba mu des expression bi mu noonu bi ne maa waxoon waxeet jour boobu moom laa pare ci góor gi la moo ko waral man de ak fi ma yaroo ak fi ma juddoo ak fi ma jaar ak lu ni lu avec humilité nekk taalibu Serigne tubaa ku sëñ Abdoulaye yar yaa fi waxoon lii moom laa gën a ragal yaa fi signé woon lii yaa yaa yaa fi waxoon lii moom laa gën a ragal ci yaa signé lii xam nga signature moom signature la. Hmm. du ma lijjël sax dañ ko falsi wuy uno mais àlla yaa waxoon nangam moom laa gën a ragal ci. yaa signé yaa lii yaa fi woon lii. ça veut quoi wax saw làmmiñ dugal wëlbati ko fois ci sa biir gémmiñ balaa ngay génne kàddu parce que euh, yow sa bopp du jël ay buum yow sa bopp sëñ Abdoulaye ma soo ko wax nee na yow sa bopp saw làmmiñ koy def yow sa bopp. waaw mais mais mais euh, Alla Dieng ah, ah. tey waa Benno Bokk Yaakaar ñoom dañu jàpp ne. conseil constitutionnel moo fi nekkal ñëpp léegi bu président Macky Sall jëlee candidature am dem déposé bu dee conseil constitutionnel nee na ko yow waroo déposé nee na daf koy rejeté nee na ñoom nañ leen permettre rek may leen ñu jël ko dox ba conseil constitutionnel déposé ko fa ñoom ñu vérifié xool Macky Sall Macky sàll la sant nii la juddoo joxe na caution xool texte yooyu nee nañ loolu moom ngeen may leen leen loolu. Abdou Khadre juum nga ci question bi. waa benn musuñu wax loolu. waa Benno Bokk Yaakaar mosuñoo toog leader yi toog ñu waxtaan ci affaire candidature bi troisième candidature dixième vingtième mosul am parce que conférence leader Benno bu ñu ko wooyee man damay teew. mais Macky moom da nga posé question ba ma tontu yow li ngay wax nii waa APR la mais APR ak Benno bokkut ma wax la lu ñu bëri xamul Benno bu ñu fa dajee Macky Sall bu fa toogee représenté wul APR Macky 2012 la fay représenté parce que Benno Bokk Yaakaar. coalition de sous coalition la. d' accord léegi. maa ñëw rek maa ñëw maa rek. ma ma ma yeggal ma yeggal li may bëgg a waa APR am nañ droit ne Macky mooy seen candidat te ñu ngi koy investir fu ne man mi bërki dem bi ma waree am euh, euh, assemblée générale Sorano dañ ma ko tere mais bu fekkoon dama fa woote ni ñi pour investir Macky Sall waxuma ne dañ ma koy dañ may bàyyi ubbil ma saa waaye dañ ma dara ñu jox sax xaalis mais man investir wu ma Macky sama mbooloo USM man lañ investir. léegi nag waa bennoo da jubóoguñ ci candidat ba ne Macky am na droit def deuxième troisième vingtième. d'accord waa APR ñoo koy def. waaw d'accord léegi APR nag bokkul ak Benno. d'accord léegi nañ ñëw ci Macky Sall si boppam ak waaw ah, am na Macky Sall président Macky Sall war naa mën a nekk candidat. ni mu la ko waxee moom ni mu ko waxee juridiquement ci wàllum yoon mais nee na accès gu léegi ay Amadou Ba ay euh, Mansour Faye ñoom ñëpp bokk ci APR léegi. léegi retiré naa Benno. léegi waa APR ñoom nee nañ. Hmm. Euh, dem déposé ji moom ku ne am na sañ-sañ dem déposé ji léegi loolu mënu leen koo may kon mu de ñoom ñu dem déposé ji. maanaam Abdou Khadre yow bu la xee say nit déposé lu suba man mii bu fekkente ne nekk naa candidat benn wala ma nekk sama candidat jubu jubu bopp samay nit am nañ droit déposé ma ku nekk am nga droit déposé nit mais Macky lu warul seetaan ñu koy déposé lu tax parce que dafa waxoon ne du nekk candidat deux mille vingt euh, deux mille euh, vingt quatre da ko waxoon bind ko ci livre. wax ko ñëpp dégg ko. waaw mais ba pare waaw ba ñëw rek. mais réew mi tënkuwuñ si kàddu yu Macky Sall mais ci ay loi ki texte la ñuy tënku. waaw léegi nag. man dama ne Macky amul droit déposer ndax moo waxoon du du bokk. man foofu laa yem affaire texte yi nañ dama conseil constitutionnel kooku sénégalais yi duñ seetaan Macky Sall di jóg di déposer lu. parce que Macky Sall soo du déposer de day déposer lu mais Sénégal du seetaan Macky Sall di déposer parce que bu déposer. Mm-hmm. danañ ko valider buñ ko valider dana jàll. te bu jàllee jàllul ci lu yoon. buñ ko validé jàpp nga ne validation bi du yoon. buñ ko déposé lee dana jàll bu jàllee dana falu te bu faloo dana falu ci lu dul yoon balaa booba nag lu ne dana ma na fee xew. d'accord léegi nag. Euh, balaa booba lu ne mën na fee xew. mi ngi dem di déposé ji donc dana une tension ci réew mi. léegi sëñ Alla nag ñàkk confiance bii nga am ci conseil constitutionnel. déedéet non si. waxuma ak loolu de. non non non li nga wax da nga ne bu dee da nga ne warut a te bu déposé dina jàll te bu faloo faluwut ci yoon n'est-ce pas nga wax. ma ma baamtuwaat ko. waaw loolu laa wax. waaw léegi nag loo nga ne nga ne ma ne amoo confiance ci conseil constitutionnel. waaw man waxuma la loolu de. d' accord non non yow boo amoon euh, ci conseil ah, waaw nga xam nga jàll jàll ak ñàkk a jàll ci conseil constitutionnel la ajo. waaw mais damaa am conviction ci ne bu déposé na jàll. man dama ko am boobu conviction moo tax waru déposé. te jàpp yow mais mais juridiquement jàpp nga ne war naa war naa a déposé. bëgguma wax juridiquement naa ko bàyyi constitutionnaliste yi. mais man pour man pour man warul déposer kon kay bul ma wax ne affaire déposer candidature mais xam nga tey euh, mmh. sànq da nga wax ne mmh. président bu déposé dana jàll te bu jàllee wala boog njort naa ko loolu waaw te bu jàllee wala njort naa ko waaw njort ko te bu jàllee jàllul ci anam boo xam ne dëppoo na ak yoon waaw waaw léegi lu dëppoo ak yoon mooy lu ñu jalgati. mais mais ma ne. nul ne peut faire plus de deux mandats xam nga léegi man dama. léegi léegi léegi kay kon mooy buñ ko buñ ko validé mooy dañoo jalgati yoon. mais bien sûr loolu man waxuma yoon dama ne moralement et mentalement moralement Macky Sall amul droit déposer warul déposer. parce que moo ne woon du bokk. xam nga loolu man foofu laa bu yem man mosu waa affaire droit constitutionnel ba nga may affaire constitutionnel yaa ko fa àggale. waaw euh, affaire justice bi. mooy justice nag yemul ci yemul ci affaire constitutionnelle. affaire justice bi nga wax ni ay. affaire justice pénale ay ah. affaire ku viol non non non justice dafa am dafa am dafa am droit constitutionnel déedéet déedéet même bu dee ay texte du bon du benn ah, parce que magistrat yi ak magistrat yi dañu bokkuñu euh, barab yi ñuy atte bokkuñu moo tax boo boo def ko benn kees danaa xajale yëpp man waaw mais ñoom ñëpp nag ay attekat lañ ay magistrat ñoom ñëpp ay magistrat lañ mais ñoom ñu ay magistrat mais bokkuñu am na magistrat yoo xam ne nii am na lu ñu sañ am magistrat yoo xam ne sañuñu lii ah waaw kay léegi léegi nag am na waaw léegi nag moo tax ma ne la bu leen def ñëpp ci benn kees déedéet def ma la si benn kees de sànq moo tax bi ñuy wax si mbirum Ousmane Sonko dama la wax na la am na magistrat yoo xam ne wóolu na leen am magistrat yoo xam ne kenn wóoluwu leen boo waxee affaire Ousmane Sonko waxaguñu affaire conseil constitutionnel non non non waaw ah, mais moom moom mais man yow nag li ma wax xam naa ko affaire loolu dafa am lu nekk cour pénal am lu nekk cour criminelle am lu nekk ci premier euh, tribunaux tribunaux yu yu yi am na sax lu nekk ci ci ci médiation. mais boo yemalee magistrat yëpp dafa benn kees mais amuñu bokk statut. waaw xaaral ma expliquer rek da ma da nga ma posé question aussi baal ma tontu. magistrat dañoo dañoo bari te bokkuñu ay ay stature bokkuñu ay ay ay responsabilité bokkuñu bokkuñu bokkuñu façon li ñuy atte mais boo bëggee magistrat bi attee nit ku sàcc ganaar wala neme na nga bëgg ko yemale kii yore affaire constitutionnelle ne ne woo ne yoon ne tout court na yoon mais bu yoon yooyu duñu yoon du benn waaw xam nga tey xam nga tey da ngay gis ñu yow am nga sañ-sañ bañ a am confiance ci conseil constitutionnel am na ñoo xam ne am nañu sañ-sañ bañ a am confiance ci justice ci magistrat de siège yi ñiy toog ñi assiette debout tey ni Mansour Faye bañ a amee confiance ci magistrat yi nekk cour des comptes ndax bi ñu fi génne rapport cour des comptes bi nee na traité na leen de politicien mooy amul amul confiance ci magistrat yooyu te pourtant magistrat yooyu ay attekat lañ yi nekk conseil constitutionnel ay atte xam nga boo déggee mën na la ay attekat du ci àggan da ngay ñëw na damaa sàcc ginnaaw ñu lay atte wala dara li ñuy atte mooy déposé nañ dossiers yi ñuy xool kan moo nekk ci yoon ak kan moo nekkul ci yoon waaw léegi nag su fekkee ne am ñu amul confiance ci magistrat yi wala mais am nañu am confiance ci waaw ah? adduna ah, noonu la nag voilà. comme yow si conseil constitutionnel. non conseil constitutionnel dama ne la man njort naa ne bu Macky Sall déposé dina jàll. boo dul déposé nag dafa parce que moo waxoon ne bokkul bu dul rek wax waxee indiwaat na te kon li fi jëlee Abdoulaye da ko fi jëlewaat. nit ñëpp dañuy denc ci moom. waaw d'accord jërëjëf euh, Alla Dieng ñu lay sant di la gërëm. yal na yàlla dolli saw feex. yaay rasulullah jërëjëf euh, Alla Dieng moom mu nekk membre ci euh, UNACOIS Yeesal moo jiite UFC. kon mbokk ñu leen di sant bu baax di leen di gërëm li mu nekkoon seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15 jotee jàpp 16 ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm wàllu machine bi jërë ngeen ngeen jëf jàmm ak jàmm